kitaabun bihi narju minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra minal karbi kitaabun bihi narju minallahi rahmatan وننجو به دنيا وأخرى من الكرب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen balu aq di balu aq ñëpp te di leen ndokkeel ci xew bu tedd bi nga xam ne moom la ñu weesu di kasu rajab di laylatul israaj wal mihraj waaye tamit di leen ndokkeel ci bisu Cheikh Amadou Fadel bi nga xam ne sunu borom tawféexal nañu mu feeñ ci bis boobu te bokki jullit yëpp doon ko màggal yàlla yàlla nangul te e, taas ñu ci barkeem te yokk leeram barakati xaadim rasul ñu ngi fii ci jumaa ji nag toog ak e, kilifa yi sunuy kilifa sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke mu Cheikh Amadou Fadel ak sëriñ Afia Bousso imam mi nga xam ne moo jiite daayira mu xadimatul xidma ngir liggéey bu am solo boo xam ne indi nañ ko fi ci njiitul sëriñ Cheikh Awa Balla mii euh, taxawu ko ànd ko ak ñoom sëriñ Xaadim Mbay ñi nga xam ne ñoom la santoon liggéey bi euh, Baye Cheikh Awa Balla mii moom Cheikh Amadou Fadel rek day kenn ci day daayira Muxaddamatul Xidma ci taxawaay yu rëy rëy rëy yoo xam ne ko koo mënuñu koo lim ci bépp yitte boo xam ne jumaa ji soxla na ko dafa doon koo xam ne kenn mënu ko ci moo xam ci koor gi muy iftaar yi yi nga xam ne ñoom sax ñoo ko sos waaye mu am ci benn bisam boo xam ne su ñëwee bis bépp danaan nañ ma ko bàyyee at mu jot mu def ko waaye ci jumtuwaay yi nga xam ne tamit mooy jàllale mooy jàllale bokki jullit yi waxtaani diine yi julli yi bayaan yi ak yu demee noonu muy caméra yi nga xam ne ci lañuy ñuy filma yu ci bëri ci moom moo ko dox ba indi ko ak yeneen yoo xam ne mënuñ koo tudd daal ci yu biire yoo xam ne daal yittey jumaa ji lay doon di yittey daayira Muxaddamatul Xidma lii nag bokk ci muy yoo xam ne yàgg na koo taxawee muy kopp yi nga xam ne bi nga xamee ne yàlla dogal na mu xam nombre bi nga xam ne ñooy dogu dogusee fii ci koor gi te koor suñu digg ak moom des benn weer daanaka mat na bët bu set ñetti junni ak juróomi téeméer ay at yu limu nag a ngi nii mu waxtaanoon ci ñoom suñu xaadim fee ci Touba Pontevico Italie ngir at mu jot ñu koy ñu koy indi kon euh, ci loolu sax euh, xaritam di taalibeem boo xam ne euh, sëñ Ibra Diop ñu ngi koy fàttaliku doonoon ko ci taxaw taxawaay bu rafet yàlla dogal mu wàcc ab liggéey daaw bi mu indee liggéey bi rek daaw ba noppi sax daanaka tegu ci lu yàgg wàcc ab liggéey kon du tee ñu fàttaliku ko ren ji nag mu mu mu sant leen ñu indi téeméeri junniy kopp ndax daanaka koor gi danañuy jëfandikoo lu néew néew moom euh, lim boobu maanaa maanaa daaw quatre-vingt-dix mille kopp lu jëfandikoo nañ ko ci ci kopp yi nga xam ne mooy mën a naan lu tàng ndax bët bu set danañu jëfandikoo lu néew néew moom ñaari junneeg juróomi téeméer wala ñetti junni léeg sax mu doon ñetti junneeg juróomi téeméer ci bis yu mag yi loolu nag la lañ indi woon fii tey ngir euh, jébbal ko sëriñ bi ci teewaayu sëriñ fi kon su ko defee dañ koy jébbal kàddu gi mu leeral liggéey bi bu noppee suñu affaire eh, jot kàddu yi sant. alhamdulilah wa kafa wasalaatu ala rasul kafa mbokk ñu leen nuyu ci tuuru sëriñ Afia nga xam ne moo nekk ci boppu liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Moukhaddamatoul Khidma di sant yàlla rek bu baax a baax ci teew gi ak boole gi ci boole. ñu wax ne liggéey la boo xam ne moom dafa am similarité da ci am ndax la ma nekkoon rek ñu bëgg caa jokk di ñëw ba agsi ci ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxee rek noonu la demee dañ ko ànd ak ñoom nekk ci di ci liggéey di ci liggéey bam mu agsi ñu tey nga xam ne nag ñoo fi teew tey ci njiitul Serigne Bassirou Dia ànd ak mbooloo mi ànd ak ñëpp suñu xarim ànd nañ jóge li sabab tey nag ñu def lu mel ni daawuñ ko def ñu bëgg a moo tax ñu bëgg ko leeral rek ne defuñu ko ngir nit ñi xam ko déedéet ndax ka ñu xam na te moo tax ñuy def waaye dañ ko def ngir soññ nit ñi rek ak liggéey bu soppeeku sunu mbokk mu nga xam ne ñu ngi wax sëñ Ibra Diop tam noppalu. ok maa ngi koy maa ngi koy nekk léegi rek ci eh, tànk yu ci amoon yoo xam ne yu doy war la ndax daan def rek saa yu rek muy te muy di joxe jox nañ ko joxuñ ko lépp day joxe moom rek bañ dem ñu suñ xaar ñoom lijjanti bañ mottali ko mu defaat waaye daal saa yu saa yu wax jotee moom eh, dalaa nga fa dana nekk moom suñu Ibra dana indi moom. nett naa suñ affaire léegi nam tàmbalee woon ak tawfeex tawfeex jëm ci am moom ba tàmbali comme nii. ñu sant ci bu baax a baax diko ko ñaan sama borom mu dal ko yërmande te jëf ji nga xam ne eh, mi ngi kon jëf yàlla sama borom fulal ko ndax eh, def na ko nga a def eh, jëf na ko alhamdulilah kon ba loolu bi mu bi mu bi demee nag ñu noonu nañ soppi liggéey bi ni nga soppi soppi gi nag dóoru ne dée dañuy din ña fa nekkoon déedéet dañ nañ gën yaatal bi ñu gën yaatal yàlla dogaloon ma dem ci dëkk bu ñuy Rimini waxtaan fa fekk li ko jiitu mooy Berisha gi nga xam ne fa la sëñ Xaadim nekkoon ak ña ko nekkal di waa jamaa ba nga xam ne ñoo jiite kër Sëriñ Tuubaa ak liggéey Brésil Berisha euh, ba ànd ko sëñ Blaat mi nga xam ne moo yoroon lu ci biti ma waxtaan ak ñoom xam ne leen kat euh, sëñ Ibra dem na te bokkoon na ci ñi euh, keneen yi nga xam ne ba jàppoon na ci yàlla dogal ma ma waxee xam naa wax ja waxi kii la woon rek waaye ji ñu jëlee ko noo xam ne kawen sama jor ndax ba ma fa jógee ñoom dañoo takku ci njiitul njiit yëpp fu woote section bu nekk ñu toogoo dafa daanaka lii kat nañ ko boole suñu liggéey suñu liggéey bi nga xam ne ñu ko liggéey suñu tubaab ci fii Brescia ak ci Italie yëpp daal nañ ci boole nañ ci boole liggéey bi nga xam ne lu ñuy defati rek man ko man ko caa boole. nga xam ne eh, dañ ko boole ci liggéey bi nga xam ci liggéey doon loo xam ne ñu toog ba mu jot ñu dajale déedéet dañoo war section bu ne eh, seet la ñuy joxe sa daayira ñu dajale ko comme ñu dajale daayira rek ñu def ko noonu ba bu waxtu jotee du nekk di xaar loolu la ñu waxoon ne kon comme def nañ ko ren te tayal tam tàmbali ñu baamuwaat dañ def bu njëkk rek waaye ñëwuñu ngir wane na joxe nañ ko déedéet ndax loxo ñu ko teg wóor na te ñi ko joxe tamit ñoo ko moom ñoo ko war yor kon liggéey bi àgg na damay wax toujours ne euh, liggéey suñu tubaab moom. gëm naa ne nekkul ci ni ko dox si yow bala wala keneen loxo boo teg rek yéene ci la suñ tubaab suñ tubaab na ko boppam mooy na ko boppam kon bañ ko joxee ca loxo yooyu teg ko rek matoon na waaye dañoo bëggoon ni leen kat liggéey bi soppi ko ni ñuy doxe ba ku daan def ne neen man daa ko jaari feneen man ko jaari ci ñoom léegi mu demee noonu moo tax ñu bëgg ko jaari nii waaye liggéey bi moom daan doxee doxe rek te sëñ bi koy nangu ren indi nañ fi cent mille kopp ndax ba ñu tàmbali soixante mille lañ ko lañ tàmbalee woon soixante mille ndax fa la ñu ñu ñu jàpp ko ne sëñ Fallu waxoon bi rek fii la ñu yem ba ñu wër ñu ko kon sëñ bi weesuloon nañu ko ba ñu àgg ci téeméer junni bu déwén tamit ñu defaat téeméer junni ñaar fukk rek daanaka fekk kon kon ñu xamal ne mbokki taal yëpp ak mbokk fu mu a nekk rek ci ci taalu bi nga xam ne liggéey bi taxaw na mi tàmbali na mi nii indi nañ ko mi ni nii nañ ko waa Moukhaddamatoul Khidma ci suñu affaire suñu affaire ngir koor gi yu ñëw lañ soxla ñu am ko ci mbooloo maa ngi ànd nañ champion bi ñëw nañ ànd nañu ak ñoom taw si kanam suñu afiya jox nañ ko teg ci loxoom nii lañ bëgg muy doxee nag su ko ñu gisaatul nag xam nañ ni li léegi ba ku ci mën a bokk rek nga xam ne eh, am nga ci yéene boo ko jaaree ci ñoom rek nam doxoon lay doxewaat mbir mi nag mbir mbir la moo xam ne moom eh, man gëm naa xam naa nag sama ngëm-ngëm mën naa nekk gën a gëm bu bu bu daay ne bi bu bu yorom bu alhamdulilah maa mi daal waaye gëm naa suñu tubaab nangu na ko ndax euh, tàmbali ba mu deme woon moom euh, suñ ko waxee dañ xam ne nangu na ko ku toog di xalaat toog di xalaat xalaat laa defoon rek euh, benn mbokk doomu suñ Basiru moom suñu mbotal xar juróom fukki oroom jox ma ma sëñ bi sama ci liggéey boobu suñ Basiru suñ Basiru mbotal xar yi waaw doomam moom la génn juróom fukki oroom suñ Seex waaw ñu si nekkoon ku ne joxe ku ne joxe bañ defee muy deux cent nangam euro moo suñ xaalim ne ko am teel lii xam naa koor gi jege na ndax ko juróom moom ab kon ab kon mënu ci àgg Sénégal bu ko defee bu déwénee ñu ñu programme ko ndax lu war farata la ndax ñu ko jënd foofu ta doy waar ñu xam ne ma waaw bi ne duggee am ko woo ku yóbbu conteneur muy ru joom mi ëj ko baax na kon bu su kii ko yàlla dogal ru joom daal di xalaat ne amoon na kopp yu mu woon daaw Sénégal te jeexut kon ma nga ci ama am mu woote ñu ne ko mi ngi fi mu ne ma waaw sëñ bi ñaata kopp nga jox moo bàyyi daat mii alaat bu euh, talib laa mu ne ma soxla nañ soixante mille kopp ma de wo suñu xaarim xaarim woo Ibra Diop ne ko waa baax daal laaj ñu ne ko kopp yi yaakaar naa wàññi ne ko mais soixante dix mille la nga xam ne soixante mille soxla nañu <laughs> ñu ne waa mbir mi léegi bëri jël kon dafa mën am nañ am nañ waaye léegi am nañ soixante mille kopp mais ko waxal ak moom fekkee ne mën nañu jënd ñu kii mu laaj ko ñu ko léegi laajuma dara kay man na dem rek léegi fexeel lu ko jël Dakar yóbbu ko ci laa woo bàyyi laat encore Baraad Mutalib ne ko kopp yi day am nañu kopp waaye xamuñu ko jëli Baraad ne ma euh, sëñ Jiiri Ñang mosuñu ma woon ñang mi ngi jëm Dakar ak ak oto bi képp pick-up bi ci laa woo Jiiri Ñang ne ko foo toll mu ne maa ngi bunt Pikin ma ne kon xaaral mu laaj ba xam kopp yi nekk nga wax ñee ko jëli ko dama jàppoon ne fu mu taxaw moo woo suñ bii suñ xaadi mi toog daane ma nee na ma nga bunt Pikin kopp yaa nga bunt ma ne ko fan la ji fan la fan la ji bunt Pikin mu tegtal ma ko ma woo jigéen jigéen ne ma mooy li ma jàkkaarlool nga ne fi mu taxaw fi mu jàkkaarlool lu la waaw loolu moom amul amul amul waaw waaw ci daane ma mooy bitig bi ñu bind xaw ma lan ñu jàkkaarloo moom mu ne ma ko ah boobu la nga ne ñoo jàkkaarloo ba mu taxaw te bu ko romboon dem Touba Touba la jëmoon nga xam ne fi ñu waxee ñoom avant de ce temps kopp yi lijjanti ko ba ak si Touba nga ne ñun ba ñu jaar jógee barab bi ñu topp fañ toogoon noonu rek tuuti ba ñu jaar jógee kopp yi ñëw na xalaat la xalaat bu baax léegi nag suñu xaarim jàppoon ci yi def noonu def noonu ba euh, mbokk moom noppalu ñu commencé waat nag suñu bés yi ñoom ak ñi mu àndal ñëpp euh, ñu ñu doxal loolu ñu yebal ñëw nag indi ko ngir wan nañu ne tàmbale war nañ benn liggéey boo xam ne bés la moo tax ñu def ko nii waaye ñu wax mbooloo yëpp neen daal ñu ñu wóolu lañu kon doy nañu ci loolu ñu ngi ko tamit doy nañ ñu ñun ñii ñun waa Moukhaddamatoul Khidma wóolu nañ ñi ñoom tamit wóolu nañ ñu te ànd ku nekk diggante bi mooy nangu mooy jël fee jox ñu ñu tam jël liggéeyal ko rek ñu ànd liggéey bi noonu laa gisee kon yàlla na saa borom te doo dëgëral bañ man koo yóbbu fuy kawe euh, li gën a mage nag ci àdduna mooy fekk ko woor nga dogal ko loolu moom kopp yaag lépp ndog la waaw xam nga ñi nga xam ne mbokk bu soobee lañ euh, féetewoo féetewoo ko moom la ñeen jox moom li nga xam ne buroon benn ñaar fukk la ñuy fay ndax alhamdulilah ñoom waaw. ndax ku baax am na nit loolu daal leen war kon ñoo ngi nuyu bokk yëpp daal di gën a siyaare sëñ bi di ko wax ne daal mi ngi noonu liggéey la xam ne daal moom teg nañu seen loxo dégg nga ñu loolu baax ci ñu waaw ngeen faso ñu loo xam ne nag mbokk yi ci bokk yëpp daal saa borom ak ñi am yéene ak ñi ñëwut ak ñi ñëw ñëw ba mu wala ñëwut waaw moo daal kon ñoo ngi saa borom rek mu taxawuñu euh, jéggal ñu te jubal ñu te jàmmal ñu euh, liggéey bi ñu liggéey suñu tubaab yi nangal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ bi kàddu rafet na lool yal na gën a dëgëral taxawaay yi leen te fayit képp ku jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki julli bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di balu àq te di leen baal di ñaan sunu borom boole nu baal te jéggal nu ñu ngi santaat sunu borom bu baax a baax ci teewe gi nga xam ne teewe nañu ko liggéey bii ni ko sëriñ Abdou Lahad waxe léegi ci turu sëriñ Cheikh Awa Balla sëriñ Abdou Lahad dellu ko wax ci turu sëriñ Afe Busa kon yi nga xam ni nooy donga yi nga xam ne noo war a takk sunuy ndigg te liggéey liggéey bi ak fu waay man di nekk ci Italie ñu ngi la ci woo fas ko yéene ànd ak yow ni ko sëriñ bi waxee ndax li nga xam ne moom la ñuy yéene sunu bopp moom la ñu yéene jullit yépp ginnaaw gis nañu njariñ nag àndul ak lor nu man cee bokk jariñu te ni ñu koy faral di defee ci daayira yi eh, nga xam ne bu ñu àllarba yi jëm ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi euh, laaj li nga xam ni moo jëm ci jumaa ji ca wet ganu féete diirab sëriñ Abdou Lahad di fi nekk ba fii nu toog di wax ak yéen at mu nekk dinañu dajale loo xam ni lii ci jumaa yi seexal xaddim ji la jëm na ko sëñ Abdou waxe woon kon ginnaaw gis nañu njariñ lu andul ak lor te yéene ko sunu bopp yéene ko jullit yépp fu waaye man di nekk ci état yi ñu ngi lay tàllal loxo ngir nu ànd liggéey boobu ngir yàlla ak yonent weeg jëmmi sëriñ Tuubaa ñu ngi sant bu baax a baax tey gërëm di ñaanal sunu kilifa yi nga xam ni ñoon won yoon wii ndax ni ko Seex Abdou Lahad bu sa waxe léegi bët du gis la koy fat ndax gàññi ñoo xam ne mën nañoo yëkkati lu ama am solo waaye duñu gis fa ñu koy dugal na mu fa war a demee eh, kon li nga xam ni moo jëm ci wàllu koor gi bike eh, biker yi nga xam ni moom la ñu indi mu di ay kaas kaas yi daa am lu ciy dem moo tax ñu di ko mën a jariñoo daa am lu ñuy toppatoo leneen loo xam ne lii lépp ci wàllu ndogu lay jëm kon dañuy woo ñëpp ndax yëmalewuñu ko ci eh, wàllu kaas rek kaas ak la nga xam ni mooy jiitu kaas ak ginnaaw kaas lenn lu mu ci doon lu nekk la ñuy son soññi bokki taalube yi pour nu daje bokk waxtaan ba lépp lu ñu yëkkate ndax indi fi nangami junni kaas yoo xam ne yii dinañu am nangami at yu ñu ko dul jëfandikoo te am leneen lu manqué bu nu jokkoo nanu war a jokkoo ñi nga xam ne ñoo yor lii muy Cheikh Abdou Lahad ñoom ñi bu ñu jokkoo ak ñoom li nga xam ne moom la ñuy war a yittewoo la ñuy dajale nu mën a xam fa muy jëm foo xam ne saa bu ñëwee ñu man koo jariñoo loolu rek la ñu yéene sunu bopp yéene ko jullit yëpp ak fu ñu mën di nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa <coughs> ñi ngi lay delloo nuyoo ci turu sëriñ Afia di la ziyaara bu baax di dellu di la dalalaat jàmm ci barab bu tedd bii nga xam ne sa barab la <coughs> di amaan mbégte itam di dajawaat ak yow ci liggéey bi nga xam ne itam yàlla def na mu bokk ci say liggéey ndax eh, ni sëñ Blaat waxee léegi jëmmi daayira bépp sëpp liggéey la taxawaay yi ci taxaw itam yu ràññeeku la yoo xam ne mënuñoo jëkk di ko lim waaye bii nag. moom suñu borom dala cee defal xaasi boppam yow ak sa bokk ya ko àndaloon di sëriñ Cheikh Oumy ak sëriñ Ahmad Rafaa yi yàlla dogal na xalaat bi seen diggante la njëkk a génne euh, ndigal yeeg sëriñ bi doon joxe yéen a ci doonoon seere bi ndigal li sëriñ Saare bi joxe woon yéen ci doon seere euh, yàlla def na sax sëriñ Cheikh Oumy ma leen fa teewaloon ci doom la ko tegoon ba léegi du ko fàtte. moom sax day da ce wax lu yéeme ndax def ne moom digalul Serigne Touba lu jaare ci loxoom moom sant na ci yàlla ndax li ci ci lii amee na ko ci loolu rëy ci moom ba waxtu wu ne day gën a fedd li pasteefam ku mu toogal itam yokku la ci pasteef ma jàpp nag ne loolee mu nekk ci moom moo nekk ci yéen ñii di ay rakkam itam yow ak sëñ Ahmadou bi nga xam ne yéen a ko àndoon kon lii benn jenn jenn jenn jenn jëf la ci biir jëf yu bari yoo xam ne yéen a ngi koy taxawee ci liggéey bi sëriñ Afia nag wax ne liggéey bi ni nga ko waxee léegi rek dool li ne xel mu dal ndax taw tawféex yu ba ku gis taw tawféex yi ci daje xam ne lu Sëriñ Tuubaa nangu la kon kàddu googu nga waxoon ne euh, ci sek jàpp taalibe yow jàpp nga ne Sëriñ Tuubaa nangu na ko nattab li amu ci ndax taw tawféex yi nga wax léegi bu ko bu bi nangutoon du ci dajee doo lu ci amoon rek lenn lu ci amoon doy na tawféex su baree noonu nag yëpp doon dajee noonu kon tawféex ju rëy rëy la kon loolu dañ ciy santaat yàlla bu baax di wax bokki bi yi nga xam ne itam mm, yéene fàggu lii te fàggoo ko ci ndigalul sëriñ Cheikh Awa Balla mii wala waaw <laughs> ci ay kon ci ay soññeem bokk war ngeen sant yàlla bu baax war ngeen sant yàlla bu baax ndax fii mu leen woo jëme barab la boo xam ne njariñu la kese la loo ànd ak lenn lor loo xam ne dégg nañ ci kàddu gu way juróom bu tedd wa mu wax ne sunu borom bi mu ko mayee Cheikhul Khadim daf leen a woo ñoom ñëpp soññi leen ca bu baax a baax a baax sant leen ko soññi leen ca wax leen ne na ngeen ci góorgóorlu te fexe ba mu am ndax sunu borom may na ma ko te won na ma ko ba ma gis ko te bi ma ko mayee wan ma ko ba ma gis ko it ñu bari ñëw nañ fii sàkku ma koo liggéeyal waaye ma yéene leen njariñ la mu wax ne ci kàddu Sëriñ Fallu lañ koy déggee mu wax ne malaayika yi dikkal nañ ko sàkku ko koo liggéeyal mu ne leen jërë ngeen jëf sant naa leen bu baax waaye nag ngeen damaa am ak njaboot te bëgg ñu jariñu ci jinne yi ñëw fa sàkku ko ngir xam la ci nekk mu wax leen loolu kon nag képp koo xam ne euh, sunu borom baaxee na la ba nga mën caa def dara war nga ko sant yàlla bu baax ndax malaayika yooyu ak junne yooyu xam njariñ li ci nekk dañ ko daw njëkkanti joon ci sëñ bi bi ko sëñ bi santaane it yaakaar naa nun ñii ñëpp kenn ñëw ko ci woon at na biñ koy liggéey ba muy sotti ñu néew ci nun ñii fi daje ñoo ñoo ko fekke woon te ñi ko ci fekke woon it ndax ñëpp amoon nañu kàttanu mën caa liggéey kon suñ demee ba tey buntub liggéey ci ubbi ko war nañ caa sant yàlla bu baax waaye war nañoo sant nag sëñ bi nga xam ne itam moo ñu ci soññi ndax lu ñu jege jege jege jege dañuy wax ne bët la koy fat du ko gis mën nañoo jege lool ñoo yëg njariñ li xam njariñ li yéene ko ñëpp yéene ko yit suñu bopp waaye leneen fab binu nu ba duñ ko bàyyi xel danañuy jëf ci yu baax yu bari waaye jëf fu baax foo yaakaar yomb na waaye jëf fu baax foo xam ne moom amul sikk sàkk yow amoo nattable ne fii moom boo fi jëfee mu àgg loolu moo gën a dal xel fu ne nag danañ fa dàkk bëggug sëñ bi tey yaakaar daje fa ak moom waaye fii nag moom bëggug sëñ bi dafee nekk te ko fi ñëwit dajeek moom kon bu ñu fi wooyee war nañ cee santaat yàlla bu baax a baax baax baax war ngeen ko war ngeen ko war a santaat yàlla ci baaxe gi mu baaxee ngeen mën cee jëf te it listixaar la nag ndax tawfiq yooyu ci daje war na leen a won lu bari war na leen a lu bari war ne leen wan ne it ki leen ci woo ku leen war a woo la fi mu leen woo it fu mu leen war a wooye la waaye fi mu leen jëmee it seen njariñu àdduna ak fa nekk te bu ngeen ko jëfee ci ni mu ko waxee dangeen ko am ndax lii wan na leen ne ni la lépp di demee yëf yi lépp automatique la noonu ni mu dem ni mu demee rek noonu la lépp di demee njariñ loo xam ne nag mënees naa xam fu muy tàmbalee te mënees loo xam fu muy yem ku la ca woo nga ne salaamaaleykum rek gis taw feex yu demee noonu boo ameem xel danga nga cey gën a góorgóorlu te sax ca ñu ngi ñaanal sëñ Ibrahima moomu bu baax te xam ne nun ñii nekk fi de te xam ne ñoo am kumpa te la xew foofe moom ca kanamam ñun ñoo amuk jaaxle waaye biir ne ma ne liggéey boobe mu liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci wax ci jamono yooyee man naa mën na ko man man man man mën na koo doy ci lépp lu baax loo xam ne waroon na ko fàggu ci ak dundam mën na caa xettaliku ba di ca xettalee mën na caa xettali ay waajuram yi ko jiitu woon mën na caa xettali boolem ay bokkam ci tawfeex jooje te loolee du yàq ci seen yéen ñi ko yéen ko seqaloon seen i tiyaaba dara kon nag nañ ci gën a góorgóorlu te gën cee sax ni sëriñ bi wax ne nañ ci soppee soppee aw liggéey aw liggéey yi itam ngir nosaat ko ndax am na fu mu daan jaar te foofu suñu borom ñëw na fa ak coobareem feneen fi muy jaar ñu bàyyi xel ne la koo koy bëggoon ba doon ko faggu moom am na ko tey waaye nun nag ñoo fi desandi ñun ñu fi desandi nit ki moom fi muy ganee àdduna ba fi muy génnee àdduna yàllaa ko fi mën a musal waaye lu ne mën na ko fee dab yàq yàq ne mën na ko fee dab yàlla nañ ci mucc waaye lii nag buñ ci saxee mën nañu danañ mucc ci yàqu àdduna danañ mucc ci yàqu rek àllaaxira te danañu jariñu àdduna danañu jariñu àllaaxira te loolu mooy yéene sëriñ bi ci doon kon nag dañ ci góorgóorlu bu baax sëriñ Afia nag nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen soññ bu baax tey ñaanal sëriñ bi itam suñu borom gën ko fee yàggal yokk ko wér yokk ko kàttan yokk bàyyee ko kum xelam ba mu gën a mën a liggéeyal sëriñ Tuubaa ni ko gën a bëggee di ko sant bu baax di ko gërëm bu baax tey dal xel ci moom ngir fi ñu féete ak nim ñu taxawoo ak nim jàppee ci liggéey bi te loolu lépp. liggéeyal maamam ak kaddu ga Cheikhul Khadim waxoon way juram wu tedd wa ne ko ku ñëw na la ca fekk ku dem na la ca bàyyi jàpp nañ ne ku ñëw na la ca fekk ku dem na la ca bàyyi googee moo leen ci bàyyi ñoom ñi ba ba am ci tawfeex ju toll ni ji ñu ci am te yéene ko ñëpp fas ko yéene bokk ak ñëpp la mu ne dama bëgg man su ma sañoon lu baax lay am te bokk ñëpp loolee rek mooy li fi nekk ba tey kon lu baax loolee yal nañ ñu bokk te ña ko war a am te yal nañ ci bokk dal nañ ko bokk ak ñu ko yéenee bokkal ñëpp ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi sant ñépp di gërëm ñëpp tey wax ne nag liggéey baa ngi noonu ubbiku tëjuwul ci geneen wet lii benn la ci yi soxla waaye yeneen yi ñuy soxla lépp lu nit di jëfandikoo ci waxtu dog lu ñu soxla la ci biir koor gi waaw sëñ bi ne sëñ bi tudd na mburu xam naa ñëpp mu a tudd sax waaye ginnaaw sëñ bi tudd na mburu tudd na beñe waaye ak yeneen yu ak xeetam ak xeetam yëpp rek waaw sëñ bi dañu ne bi neen bi mu tuddee mburu ree nañ waaye sa na waaye eh, xam naa loolu it day wane rek ne lépp lu nit di jëfandikoo ci ndog soxla nañ ko ci koor gi te ñuy tey ni lii di jàlle rek na loole loolee di jàlle waxoon na léegi ne kop bi ak dogal la waaye dogu mburu boobu ak dogal la guuxum ndox boobu ak dogal la doomu tàndarma boobu ñuy jëfandikoo ak dogal la leneen lu mu mën a doon lu ci jëm itam ak dogal la kon nag te dogal ko war rek ci la yooyu moo doon wax léegi nekk kon nañ ci gën a góorgóor lu baax ñu ngi ci soññ suñu bopp di ci soññ ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.